lépp ci lu baax lay joxe ci ay téléphone ventilateur congélateur clim lépp lu baax lu ne ci kër Lamine da koy joxe sama xarit la taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Serif bi taalibe sëñ Babacar bi grand lay nuyu. waaw DJ ñu ngi lay nuyu di la <laughs> sargal <laughs> di la ñaanal jàmm salaam. mais nam naa la. waaw fii la ëppee fii la fekk marché central yaakaar naa ne ñun waa Sen 24 tous les jours dañuy dugg ci marché bi di waxtaan ak ndaanaan yi waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñu ci dëkk bi temps yi nan nga gisee xale yi nga xam ne dañuy jël gaal yi di dem nan nga ko gisee waaw loolu moom man euh, faute bi dama ko teg gouvernement d'abord hmm. parce que jeunes yi franchement sénégalais ñëpp ay jàmbaar lañu man jeunes yi man ñëpp jàmbaar laa xam ñu ngi taaba taaba ñu ngi liggéey ñu ngi dugg du génn mais saan dañoo amul ku leen jàppale gars yi dañoo war a créer ay entreprise di ci liggéey jàppale leen ñu liggéey ci dëkk bi mais su fi liggéey amul rek te ndeysaan ñëpp dañoo bëgg a tekki bëgg ñu dimbale yaay booy bëgg dimbale baay booy si booba nag gars yi dañuy foo ñu sacrifier seen life pour jéem a tenter feneen te su boobaa day métti kon gars yi nañ leen jëmbali jeunes yi am ci lu ñu jàpp daal waaw mais dégg naa temps yi place bi yaakaar naa ne xeetu bagage yu ne wàcce nga ko fa lépp lu rafet ci kër baax ci salon dégg naa wàcce nga daal place baa nii clim mhm. yi mhm. am na mhm. euh, télévision yi am na actuellement dama nekk ci promo sama yaram taag dama nekk ci promo ay prix yoo xam ne mus waaw borom télé bi moom nga xam nga moom mooy mooy mooy mooy ndey ji seex mooy bàyyi seex lu ne lay def ci dëkk waaw moom ko wàcce kaw ci kanam rek parce que seen TV man sama télé la seen 24 franchement euh, seen 24 sama télé télé la. ndax def naa plusieurs émissions yoo xamante nii fa laa ko defee man mooy sama ndëmba wan parce que man sama kër léegi. moom rek la ñuy seetaan. su ma ñëwee daal na Ndella Lamine mu ne ma waa ma ne ko jàppal ma seen van kaa ñu seetaan dijjee. Ah. émission yëpp laay seetaan wallaahi. mais noo def ci dëkk bi di dugg moom actuellement nii yaa ngi sensibiliser jeunes yi. Mhm. yaa ngi jàppale commerçant yi. Mhm. yaa ngi jàppale ñëpp ndax actuellement képp koo xamante ne nii rek bëgg nga am bës bëgg nga siiw mhm. na ñëw gis jaay ñaar dina teg ci kam na dina la teg ci yoon bi wan la naga la wan la naga la ban clip ngay may ndee la aawa buuru këram aawa bi nga xamee ni ay njëkkeem dañ koo gërëm ay gorom dañ koo gërëm aawa bi la jàppale ban clip nga koy may waaw may naa ko dalinkoor dalinkoor bi jeex na ndela bi nga toogee ba léegi puusoo paasoo sa jëkkër jee wax nee na may ne la daliñ kóor waaye nag sama téléphone jotaguma ci maak Issa tey nag sama caméraman bi Issa laa ci àndal la gentleman la caméraman la animateur Issa yàlla sa jàmm yàgg ay salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Thiès salaamaaleykum partout dans le monde salaamaaleykum yéen ñi a a leen kontaane bu baax a baax a baax a di leen ñaanal jàmmi adduna jàmmi alaxira képp koo xam yaakaar naa yaa ngi jël sa commande ko bàyyi ci seen 24 ñaanal jàmm sa suné di bëggee ñi nga xamné ne yaakaar naa ñi ngi partout dans le monde jël seen connexion diko perte ci seen 24 TV ñi ngi leen di ñaanal jàmmi aduna di leen ñaanal jàmmi àllaaxira ndax nee naa leen seen 24 wërna aduna àdduna seen 24 lëmbe na àdduna télé bi nak yaaka naa ne Sapa Tek Demba Yoro borom ñayu ci Saloum nee naa la dundal lo dund ñu kontaan loo dund ñu bëgg nee naa la yaay ki nga xam ne yaa ñu jàppale yaay ki nga xam ne yaakaar naa ne yaa ñu may fit ba ci dëkk bi lu ñu neex la ñuy def lu ñu neex la wax ci lu baax Engie yàlla sa jàmm yàgg ñu ngi lay ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad fi nga bëgg ñu àgg fa ñu ngi lay ñaanal ci barke borom Touba yàlla na ci def lu kawe sa njort ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi nuyu nag équipe bu Sen 24 bépp di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi nee naa la rek Sen 24 école la Sen 24 kër la goo xam ne yaakaar naa ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax a baax muy technicien bi muy animateur bi muy journaliste bi muy enquêteur bi yéen ñëpp maa ngi leen di kontaane di nuyu nag tey nag sama spécial caméraman kan laa àndal Issa xale bi nga xam ne yaakaar naa ne moom moom zone bii nii di ko dalee Ndiassane jàpp Tivaouane côté boobu yëpp xale bi moo ko moom maa ngi lay bu baax a baax waaye nag Issa damaa xuloog sama caméraman Racine Kama waaye nag nu ma mel moom la maa ngi lay kontaanee bu baax Racine del wàccee sa température rasit del wàccee sa degré rasit del wàccee sa tàngaay yaram ay jàññaare ngi noonu biram si ga tey ñàkk ñu ma ngoor jaañ sàmba séréet bi ci am gaal ci bokk sàmbaay borom rus ngeen nee naa leen bàyyi mama jaañ a ngi nii chéri roqoya ne woon naa leen nag lu mu guddi guddi guddi guddi guddi caali laay fanaan ndax nu ma mel waa caali la nu ma mel waa caali ñoo ci jàpp waaye nag kenn du sama aawa buuru këram roqoya fall sama jabar yi nga xam ne ni yaa ma gënal ñaareel yaa ma gënal ñetteel yaa ma gënal takkoo dafa lu la neex nu ma mel yow la rasit boo jëlee sama jëlee sama sañse Issa xool tey li ma black and white te damaa black and white waaye damaa jóge caali dox ci poussière bi damaa pënd. ay ah, di leen kontaane bu baax a baax sama clip préféré may ma bascung bu bees bi may ko Roqee Fall ak bépp aaw buuru këram. janñaar ne woon naa leen heure su ma rek yaakaar naa ne dinañ dal ci ndaanaa ne dinañ dal ci ñi nga xam ne yaakaar naa ne Thiès dañ leen bàyyi xel kii ma dëndal nag kooku mooy kan mooy kàbbu sama doomu bàyyi sama xarit newoon naa ko maa la nekkal ci saayar gi moom moo ma téyel baatin gi sama mag sama xarit ñu bokk bàyyi bokkandoo benn kër gi nekkandoo di fa waarandoo muy seen 24 TV sa patek Demba Yoro borom ñeeyu ci Saalum ñu lay kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax kenn du yow njëgeen maam aas NJ ay dundal waaye maa ngi lay kontaane mais kabbu <laughs> mais nam naa la <laughs> mais maa la raw xarit lay siyaar baax a baax maa lay siyaar maa ngi nii rek lépp cool waaw maa ngi sant bu baax a baax téléspectateurs yi seen 24 TV aussi yow di sa soppe parce que yow. ñëpp xam nañ ni euh, dañuy xaar sa émission quoi. parce que macha allah liggéey bi da koy jox gëddëm macha allah jox ko euh, ak euh, xam a a a ni nga ma waxee maa la nekkal ci zaahir bi mais ñun ñoo nekk fépp rek ñun seen 24 rek moom mooy ñaar. kontaan naa ci liggéey bu baax. bu fekkee ne sa bërëbu liggéeyukaay ak jamono ñu toll ni yaakaar naa ne coowul gaal yi bari xale yi dugg ci gaal fi nekk nii lan ngay conseiller jeunes yi ndax maa ngi la fekk fii ci maquette bi nga nekk sa waar gëm sa bopp loolu nangoo liggéey. Mhm. waaw loolu moom soo ma si laajee naa ci sawar wax tuuti sax xam nga maa ngi doon daw écran bi sax mais forcé nga ma ko. Euh, mais xam nga jeunes yi dañoo dañoo dañoo dañoo yàkkamti. Mhm. te yàkkamti bi yëpp nag li ko waral man dama leen di comprendre si benn côté parce que li ko waral mooy sonn en même temps bëgg a tekki ñu si bëri koo ci wax danaan damay tekki ba teral samay waajur tekki ba suturaal sama bopp tekki ba ba ba suturaal sama famille te li ci ëpp métti boobu maa ngi dégg benn sëriñ di ko wax barki Demba Ndiaye Cheikh Abdoul Karim Mbacké nga xam ne àdduna bi yëpp dañ koy euh, bàyyi dañ koy bàyyi xel muy euh, euh, leer ci Serigne Fallou Mbacké nee na soo gisee xale yi di mbëkk nii di dem ci mbëkk mi nii di sonn nee na ngay nekk ci benn kër nga nekk góor yàlla nee na xoolal da ngay yeewu ñu naan amoo fi njariñ ban njariñ nga fi am xoolal sa rakk ji mhm. bu dee 1000 francs sax moo koy joxe ci kër gi ah goroo yatoo ñàkk mhm. jom ba bëgg a dee mhm. te yow jom nga fanaanoo te moom nga yeewoo te moom nga fas yéenee yendoo mais ñu lay xas di la xarab gaay yu bëri dem ci mbëkk mi faatu boo lan lan lañ demee. dem dee mbaa dem am. noonu lañ demee mais nag fi ñun nañu bàyyiwaat xel suñu njaboot gi. bàyyiwaat xel suñu rax yi bàyyi bàyyiwaat xel suñu mañ yi xam ni wut sax taxul am. yàlla moom moo yor am. nit day wut ba dee taxul mu am benn am na ñoo xam ne dañuy nelaw ba onze heures midi ñu jóg wax ay ñetti baat yàlla jox leen seen wërsëg am na ñoo xam ne fajar la ñuy yeewoo barke maam Cheikh Ibrahima Fall di dóor di def nii di def lii te billaahi la kay wàccaale ñoom duñ ko wàccaale mm-hmm. nañu gëm ni yàlla moom moo yor affaire yi nañu toog xaar ku war a dem di nga dem loolu laa gëm lan ngay wax soppe ci Sen 24 TV. waaw mais ma leen di wax ni télé bu mag bi la. xam nga Sen 24 TV ñëpp tàmm nañ loolu ci sama kàddu. kii mooy télé bu mag bi. te keroog dama wax sama émission bi passé ma ne instant bii ñu toll nii. Thiès ak li ko wër lu fi feeñ ñun ñoo ko feeñal. waaw dëgg neexul. <laughs> li fi feeñ ñoo ko feeñal. boo demee NG Musique jaañaara nga fa di ko toj. boo ñëwee ci cant yi xam nga. waaw ñoom laay sëyee nga fa. <laughs> Ah. soxna yaa nga fa. Ah, kaba nga ci wet gi di leen jàppale <laughs> ndarkeepu Thiès ak li ko wër. mi ngi baax daal ba mi ngi baax. lan ngay waa Thiès ci Diagne Niar. waaw mais Diagne moo ko yor. waaw chaque jour dama ko yor damay Diagne Niar moo ko yor képp ku mu ñew sa place ah. da nga naan ki yakamti won na mu ñew sama place jaaree na fa tak ba faw te duma ma eh. kon gaay nak ah. bu jàññaar duggé bay génn da ngeen ko wara am lu ngeen ko walé ah, waaw barké mam Cheikh ibrahim Fall bu duggé bay génn ci place yi da ngeen wara am lu ngeen ko walé ndax ki bu ñewé da lay talté da do fay barké mam Cheikh ibrahim Fall ngay may madame première dame mais yow xolal bu neex rek xol dama baña a maye gars yi ma no dafa dafa ki quoi yow yow xoolal may na la dalin koor séri kàbbu nee la aaw bi nga xamni ne na ne ya jappalé so mag ya jappalé Baye Fall yaa jàppale say njëkkee yaa jàppale say goro dundal duñu takk ñaareel nag ba tey ñi ngi ci biir maquette bi yaakaar naa fekk fi góor yàlla yi nga xam ne ñu gëm seen bopp lañ ñu nangoo liggéey gëm seen bopp lool xale yi ma fekk tey ji yaakaar naa ne ci gaal ñi ma fekk nii teeloo seen bopp daal di dugg ci ndox mi waaye nag ñu dugg ci ndox mi jooma leen yóbbu ñu dugg ci ndox mi barke yonent yàlla Muhammad fula leen yóbbu waaye nag ñi leen di ñaanal bu baax si Mohamed. ci loo nee sant yàlla bu baax ma fekk la ci maquette bi fii nga nekk xale bu gëm sa bopp nangoo liggéey loolu ma fekk la nga rangale iPhone yi rangale Samsung yi lan ngay wax jeunesse bi nga xamante ne yaakaar naa ne ñu ngi gaal yi dem ci géej gi. Euh, maanaam mbir mi moo toll xam na ni. Mhm. jeune bu bëgg dara. Mhm. gëmal yàlla rek liggéey. suñu borom moo yor lépp yàlla wax kenn dara <laughs> waaw dem ba ñu metti danoon jaayante gëm yàlla suñu borom ànd ak yàlla <laughs> kon tey lii bu demee ni sant yàlla baax baax a baax at na moom jot yomb rek <laughs> dóor rek waaw di ñaan tamit xam nga suñu borom def si réew mi jàmm ak salaam rek waaw ñaan tamit liggéey bi tamit client yi gën a ñëw macha allah bagage lépp am na fi moom waaw Mouhamed mais maget bi fii nu ngeen fi nekkee yéen góor yàlla yi waaw maget marché bi moom euh, gëm sa bopp rek dóor rek moo fi am daal waaw ku nekk daal yaa xam ni tooy sa bopp jinax waaw fii jàpp liggéey rek jël lépp jox suñu borom ndeysaan waaw na nga gisee seen 24 TV ak Diagne lu xew mu jóg dugg ci bi waxtaan ak nit ñi nan nga ko gisee non kooku moom da nga koy ñaanal suñu borom rek jël ñu tuut tur quoi kooku moom ñëpp ràññ ko si Sénégal àdduna sa la àdduna ñëpp ràññ nañ seen seen TV 24 waaw ah, ndeysaan ban clip ngay may say fans ak say clients yi nga xam ne yàlla ni jaay téléphone yàlla ni jaay lépp luñ soxla waaw man moom xam rek ab baay man waaw man moom Serigne Sarr rek laay dund laay tiitaroo waaw si Amadou Bam dama la may Mouhamed Niang ah, la ngoy demee nag Fall ah. Ndiaga Yaram kan ak kan nga koy may waaw di ko may ñëpp rek ku li ki dóor waar rek ah. di ko may ñëpp rek ah. maag Seydina Mouhamed ah mi ngi noonu nee na ma janñaar koy may képp koo xam ne ni yaa ngi waar xale yaa ngi noonu nag gëm seen waaye nag kenn du sama caméraman bi xale bi nga xam ne ni yaakaar naa ne damaa bi nga xam ne ni mu neex bu filmé mu neex Issa yàlla sa jàmm yàgg waaye nag Rokhaya Fall je I love you mi ngi noonu ak seen 24 TV ak Diagnard waxoon naa leen ko neewoon naa leen heure su ma duggee ci biir ville bi rek dinaa dajeeg ndaanaan yi dinaa dajeeg yi nga xamee ni yaakaar naa ne leen di xel kii dendal nag kenn ci biir Thiès champion la ci biir Thiès jàmbaari Sëñ Fallou jaa ngi nii jàmbaari Cheikh Abdou Karim jaa ngi nii kii mooy kan kii mooy Fallou Fallou góoru Khady Faye magu Diagnard mi taxaw grand maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la ziar bu baax. ci la ne maa ngi nii di sant yàlla baax yaa ngi am jàmm waaw maa ngi am tawfeex baax ñu dugg bi daal daje yow yaakaar naa ne 6h32 bi fii ci biir Thiès ñu gisee seen 24 TV yaakaar naa ne tout le temps xale yi jël gaal yi nan nga ko gisee grand waaw actuellement nii avant tout damay waa Sénégal yëpp nuyu waa Thiès mhm. di nuyu kilifa dini fi nekk ak kilifa aada yi mhm. di jaajëfal directeur général bi nga xamante ne mooy Sen 24 in ji te parce que lii nji moom mooy njaag nekk na ndaw ba pare nekk doomu Thiès mhm. nek doomu zone nord jël initié ben émission bo xamante daf ko jël pour jàppale jeune yi jox la ko nga nekk tamit ci marché bi di def ben tour bo xamante si ni da ngay wane tey jii ñun amuñ leen lu ciès mhm. di remercier bu baax wa sen 24 di ñaan yalla sen liggéey bi jëm ci kaw ci kanam di remercier aussi wa marché bi yépp yow Ameth Diagne ci taxaway bi nga xamante ñong kay ngi koy taxaw yow di la ko jappalé ci li nga xamante si ni tey jii yaa ngi koy def tay ci li nga wane di fësal tay marché central di fësal tay liggéeyu marché bi

nga. dafa leer da ngaa ñëw jàppale Khady Faye si benn clip bi mu doon def nga ñëw jóge fi dem ba jàpp ci macha allah def ba mu baax. kon yow dañ lay bu baax di la jaajëfal. di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp lëg bi si topp mooy que ni ñun jeunesse bi. ñi nga xamante si ni doo ñëw tey jël gaal yi. nan delloo seen xel te xam ne yàlla lu mu bind ci doomu aadama ku le xaale bala ngaa dugg ci kaw suuf di nga réew mi métti na métti goo xamante si ni kenn ku ci nekk la ngor la toon olof Njaay mu caatum la ku njëkk yuuxu da ngaa ragal mm-hmm. mais nan delloo xam ne tey jii kenn ku ci nekk rek lo am ak lo man la suñu borom la tay so xolé tay ñi dugg ci gaal di pass ay 400 500000 ñoñu non tay ji amna lu mu leen mëna a apporter ci dir 6 mois tay so su nekké rek ñafé to concentre ba nga ci am lu bari su dem joté rek inshallah rabbi li nane ku fa sa kaasu kafe nekk rek di nga nani waaw ñun def lool ñi ñi sensibiliser di wax jeunesse nañ gëna a parce que sen parents ay espoir lañ te ñu bari tay ji suñu démé bàyyi sen parents di nañ am ben fièvre bo xamanteni ma leen dal ta xalaat bi ñuy xalaat la kon dal may lancer ben appel jeunesse Sénégal nañ toog te concentré wu te xam ne sunu borom moo yor doomu aadama gémmiñ gu mu xar dina def li ciy nekk te yàlla doo ci kenn loo coon sekk naan béy li mu daan dundee ba màgget fa su ko continuer na cee gaaw kon nan sant yàlla bu baax te xam ne suñu réew réew teranga la réewu jàmm la na jeunesse bi toog te xam ni métti na mais lu métti rek day jeex jërëjëf mi ngi noonu ban clip ngay may fans yi ak seen 24 TV lan ngay wax nit ñi ci seen 24 TV bon man moom daanaka ميسيان ييب ساماي خاري لانو واو واخ خمناني كوم لي ماي فارال مان توجور داماي فارال دي وخني نيت كي سوفيك دا غاي نيك كو خما دا غاي جوخ با اكزامبل سونو امي مابين دو سيك واو غال غي بغا ليغي واو بغا ليغي واو بوبو دا امو ليغي سي لا مومون سي لا مومون ني دوغال كو جينيس بي توك كونسانتر كو توك سا سال ورا تاك ساي باغاس ديم nga delo ci wat sama ra xamne tay ji li ngay gis ni sa soge kon bobu da suñ ko mané jeex ci bir tibalato bi ba duggal ko dina bax trop quoi waaw mopenda boobu bëgg a liggéey boobu waaw boobu daal may gaay di ko may jeunesse Sénégal ah mi ngi noonu di ko may ñoom sëñ Mbacke ñu duggoon ci gaal gi di ko may ñoom ne ko réeli gaay nga xam ne doon jaay seen life naan dañu dugg ci gaal gi waaye nag góomal da nga doon jaay seen life bëgg a ko waral waaye nag nañ toogaat delloo xel ci yàlla sunu borom xam ne àdduna yàggul àdduna dara yàggul ndax sunu borom nee naa la bépp seen boo xamante ji wàcc tey li ngay filmé lan la Roxaya Fall je ak seen TV ak Diagne waxoon naa leen ko tey samedi bi nag central la ngi yëngu dëkk baa ngi yëngu ndax yaakaar naa ni seen 24 heures bu jógee rek daal di génne ndaanaan ni seen 24 heures bu jógee daal di dajeeg diriyànke yeeg diri mandanke yeeg xale jigéen yi nga xamee ni dañ di bàyyi xel waaye nag kii ma ci dendal da di koo xamee ni yaakaar naa ne kenn du moom ci central Omar Fall nee ko doomu yaay Papa Thiamas doomu yaay Diagnar mi toog kii la xale yi jigéen yi wóolu kii la diriyànke yi wóolu en temps yi bu nga gisee xale yi di jongoma kii moo ko waral Omar Fall sama xarit sama doom yaay mais doom day nuyu naa la. waaye doom day maa ngi lay fay. sama xarit sama doomu ndey ah, borom seen 24 TV xarit loo reporté wul baaxul. mais yow man dama laa barki maam Cheikh Fall ku nekk ka lay daaneel mais yow yaa may daaneel. man man ni may def ëpp na. ñu bokk luñ mënta séddoo nekk Baye faal gi nga doon nekk. tax ma gën laa bëgg. fonk sa liggéey. xam say nit xam say nawle. foo fekk sa moroomu artiste. dëgg yàlla yëkkati ko aj ko ca kaw. waaw di la ñaanal jàmm. li ngeen bëgg seen télé bi seen 24 TV yéen a ko xam. yokku ba yokk tey ni ma ñëw fekk na sa place nga gëm sa bopp loolu toog di liggéey say client di la fekk ak jamono ji ñu toll yaakaar naa ne jeunes yi jël gaal yi di dem fu ne lan ngay wax jeunes yi. waa xam nga dañ ne yàkkamti yàkkule. le te doomu aadama moom fépp foo nekk ak looy munti yëngu boo ko gëmee sunu borom bi defal la ci ndam ñun ñuy dem ci gaal gi kenn daa ko ñoo dem gaal parce que Sénégal fépp la metti nee naa la luy baax la fenn seddut ku yaakaar ni Europe génnee boo fa demee di nga tibb indi mm-hmm. yaa ngi nax sa bopp waaw toogal bu dem jotee nga aw ci yoon bu légal àgg bu la fa yàlla defalee ndam nga liggéey am ñibbisiwaat mais gars yi daal wax dëgg yàlla du conseil bu may jox jeunes yi saa yi est-ce xam nga ni des na tuuti góor dootul am ci dëkk bi bu baax xale jigéen dañu am problème yonent bi damay posé samay client dañuy jooy man leen lu ngeen di jooy ñu ni ma góor oh! man leen lu xew ñun ma ñëpp dee nañ ci gaal gi ñun ñi fi des nag ñoo nar a am problème dimbali leen ñu yéen xale yi xale yu góor yi ma leen koy ñaan ngi laay war a suuri ku ciy ngàcc foos sax gëm ko totoog gaal seen waaw ñun ñun bu ñu basé ci gouvernement ñun ay Baay Faal lañu waaw waaw nit moom loo nekk rek gëm ko sunu borom bi jàppale la ci barki maam Cheikh Fall da nga ciy réussir waaw ñun de lii lañ am te moo ñu may lu nekk nag waaw buñ la rombee di nga xam ne ñii ay borom jom ñu boo ñëwee fa ñu dëkk tamit di nga xam ne ñii ay borom jom ñu waaw kon daal li may ñaan gaay nañu toog waaw nañu toog dara jeexut bu kenn yàkkamti dara waaw bu kenn puuse kenn ba nga ni yaa ngi dem ci yoonu gaal yi bu la ko ñàkk jaral bu la ko famille bu sonn jaral bu la ko dara jaral parce que boo deewee da ngay perte loolu waa ji naan ku dee sa yaay juraat bu fekkee sa yaay daa mën a pose du juraat te doo yow la nga doon wuti da nga koy mujj ñàkk kon nañ jàpp ci yàlla rek ñu toog kenn ku ci nekk la la yàlla wërsëgalee nga yem ci ñëpp mënu boo bokk am ñëpp mënu ñoo bokk tekki ñii yàlla da leen bind ci am ñii yàlla da leen bind ci xaw a am am na ñoo xamante ni dinañ dund ba dee duñu xam bànneex yàlla moo leen nattoo noonu parce que àdduna moo bindoo noonu kon nañu jàpp ci li ñu am ñu toog liggéey gëm yàlla xam ni lépp mun na laa fekk fépp foo munti nekk bu kenn forcé mbëkk mi man fañee damay saan télé mais sama yaram dafa daw parce que maam Cheikh Fall bu ma gisee nit ñi génnee wakaam mu leer na ma ne leen ñii ay doomu aadama lañ ay jeune lañu non man dama ne non àdduna ñun ci ban monde lañ nekk one wulaa ban dëkk lañ nekk dañ gëm sunu bopp lan ngay wax waa Thiès si télé bu mag boobu noonu ak animation Diagne Nar ah, xarit nag laaj nga ma a tontu man duma ko rate barki maam Cheikh Fall yow nee naa la yaay borom seen 24 TV yow loo animé wut baaxut xam nga da ngay toog naan Baye Fall lu ñu pose wut baaxut mais yow loo animé wut baaxut te xamal naa la benn affaire de damay sàcc wax na ko de est xam nga ni koo tollool jamono mi ngi lay bàyyi tuuti xel barki maam Cheikh Fall ban clip ngay may say client ñi la taamu ci en time ci mariage yeeg ngénte xalaa ñu dellu faramaan faramaareen rek yow xam nga ni ñun dëgg neexul ay doomu géwal lañu boo ma ci may nag bëgg naa waaw boo ma ci xam nga ñuy def Abdou Fall Thiathio da nga may woyalu Omar Fall ma waa central woyalu ma waa poskat yëpp yoo xam ne yaakaar naa ne ñu ngi central xale yaa ngi nii nag gëm seen bopp loolu nangoo liggéey yaakaar naa ne di ma teral fu mu mënti nekk di pose sama jabar loolu suus ñii bu ma yàlla bëggee ma bàyyi ñoom Issa dañuy fi sa jabar ñu daal di koy yàqatee Thiathio woyal woyalal ma poskat yi e ciao mi ngi noonu ak seen 24 TV ak Diagne waxoon na lekk ko su ma duggee ci marché bi damay daje ñi nga xam ne dañoo gëm seen bopp damay daje ñi nga xam ne yaakaar naa ne liggéey rek moo leen ñor xale bi jigéen bi ma dendal nag muy xale boo xam ne nii nekk ci central bu posé mu rafet bu la jaayee leket nga kontaan bu la jaayee pitaaw nga kontaan bu la jaayee fuddan nga kontaan Mbayang Seck borom Madina Fall doomu yaayu sama jigéen Njaaña Mbayang maa ngi maa ngi lay fay. ci loonee. ça va maa ngi nii. naka temps bi. temps baa ngi nii rek. climat bi waaw Madina Fall. fa. ñu ngi jàmm baax. ñu ngi dama gis temps yi dëkk bi journal yéeg télé yéeg ñuy wax ci xale yu góor yi dem ci gaal yi mbayang ak Sénégal ni mu manqué ay góor lan ngay wax seen yi nga xam ne ñu ngi jël gaal dem Espagne lan nga leen di wax. ah li ma leen di wax daal mooy dë dëkk bi metti na daal. Hmm. li fi nekk yëpp kenn mënu koo wax ndax chaque duur ak kaabu bees chaque jour ak lay xew moo tax xale yi noonu rek lañu mën a def donte gaal gi sax mooy loolu toog sa dëkk liggéey li ngay liggéey loo am gëm ko xam ne lii nga am moo gën foofu dugg ci gaal yi man daal sama sañoon ñu tegg seen tànk bàyyi gaal yi ñuy jël gaal yi mën na cee xew na nga gisee seen 24 tey ji nii mu def di dugg ci dëkk bi di waxtaan ak nit ñi ñi nga xamante ji yaakaar naa ne ci actualité dëkk bi ak di nga xamante ji mooy neexal dëkk bi ak sama animation man jaay naar lan ngay wax waa Thiès si Diagne Naar. yow moom ni ngay animé neex na. Ah. jaar na ci yoon. nit ñi bëgg nañ ko. chaque jour daal ñu ngi lay suivre yow rek la ñuy topp topp ñu keneen. man daal ngeen di topp. yow rek la topp ban clip ngay may waa Madina Fall ak say clients yi nga xam ne ni yaa leen defal lu baax ci ci seen kanam. clip boo leen may baax na yéen bu ngeen teg rek bëgg naa. mais tànnal parce que am ngay woykat. may leen Sidi Diop. Sidi Diop ah. ah. ak waa Salamba. maa ngi koy may waa Salamba yëpp. may Awa ñaaña Soxna. képp ku nekk salon bi rek maa ngi koy may. am nga ñoo fàtte de. waa Madina Fall fàtte nga leen de. fàttewuma leen moom. Ah. ndax foofu laa ah. mooy sama koñ mooy sama lépp. ndeysaan. fa laa defee sama lépp maa ngi mm. leen koy may waa Madina Fall. Mm. tali bu bees. Mm. suñu waa kër. mi ngi noonu daal. tuuf ah mi ngi noonu nee ma naat. sama yaay <laughs> taa de sa yaay. ah nee mi ngi may taa de moom mi nga xaw ne fer rek lay jaay taa fer yu baax yi ay fer acca mi ngi noonu ak seen 24 TV ak Diagne ne woon naa leen heure su ma duggee ci marché central dinaa waxtaan ak naran yi dinaa waxtaan ak commerçant yi dinaa waxtaan ak poskat yi dinaa waxtaan ak jaay ko du fëgg jaay waaye Fallou maa ngi lay kontaanee nee naa la da maa bëgg ma bëgg la lu ma neex laa lay def damay ñëw jël dem ba heure ma neex ma fay la yenn saa yi sax du ma la fay Fallou borom soutien yu baax yi borom yu baax yi Fallou reefan doomu neex mais sama jigéen maa ngi lay nuyu maa lay fay. ci loo ne. maa ngi si jàmm. naka marché bi. marché ça va de. tey samedi bi lu mu wax tey. waaw waaw sant de alhamdulilah. mi ngi neex daal. waaw macha allah central nga gëm sa bopp loolu nekk pause kat. waaw dëgg neex ni mel xale yu góor dem ci gaal lan ngay wax xale yu góor yi nga jël gaal di dem Espagne. loolu moom mooy dernier des solutions te dernier ba sax defe naa pour nga àgg fa problème la. du solution. Mhm. te xelalu ma ko kenn aussi mhm. waaw. seen fit dugg ci gaal lan nga leen wax ñooñ takkuñu seen fit de ñooñ daa fekk ñu am fit parce que loolu bu am fit moo koy def jigéen nan lay mënee dugg ci gaal jigéen tamit góor ñi nga xam doole sax amuñu am nañ doole mais amuñu doole sauver seen bopp si biir gaal gi waxuma laay jigéen risque la de waaw. tey lan ngay wax jeunesse bi ak lan ngay conseiller seen yi. ah li ma leen di conseiller moom dañoo toll si monde boo xamante ni. on est au vingtième siècle liggéey rek amu góor amul jigéen amu mag amul ndaw te ku liggéeyul perte ba ban kilim ngay may say fan ak say soppe ñi nga xamante gi ñu ngi lay bàyyi xel di leen jaral sag suñu ñu ñëw bu ñëwee marché nga defal leen lu rafet lan ban kilim nga leen di may. nổ kan mooy sa waykat. Waly Seck. Waly Seck waaw. lan nga wax waa Thiès sama animation animation Diagne Naar noo ko gisee. yii macha allah. mi ngi neex. damay wàcc sonn war a di ko seetaan. eh je te jure. kon daal man ngeen di rek laay topp. Ah. amul keneen. cum yéen fi ne. ah nee na ma seen 24 moo fi ne seen 24 laay topp waaye sama caméraman bi Issa yàlla sa jàmm yàgg. ak seen 24 TV ak Diagne Naar naa leen ko heure su ma jugee ne dugg dëkk bi dañuy waxtaan xam ne nii moom la dëkk bi laaj dañuy waxtaan li nga ne dëkk bi ñu nekk ci jamono joo xam ne yaakaar naa ne xale góor yaa ngi jël gaal yi di dem xale góor yi di jël looco yi di dugg ci Espagne may laaj ndax loolu lan moo ko waral ndax dëkk bu amul liggéey la wala dëkk bu amul njiit la ma dana ci xale boo xam ne yaakaar naa ne nekkoréel la bu ñu nee nekkoréel la mi ngi ci central nekk xale bu gëm boppam nangoo liggéey loolu waaye nag dem na ci gaal yi ñetti yoon xaw ma ñeenti yoon tunguñu du teew nag ñuy nataal ndax sànq ba léegi maa ngi koy tudd ci biir émission bi di dox ba dajeeg moom muy nekk relais di Ibrahima Ndiaye di sama jarbaat mais jarbaat maa ngi lay nuyu. Ameth maa ngi lay fay ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yenante bi. sant suñuy ñaari waajur. de ndeysaan. waaw di la sant di sant sama caméraman bu baax bii. sa Seydina Issa Roulaye waaw waaw waaw dëgg neexul ndeysaan waaw ngay wax nag ci lu am sance nag muy lan affaire gaal yi hmm. waa ñun dañoo nekk ay ndaw rek hmm. waaw di liggéey demuñu pour sàcc ji demuñu pour def ji lu bon ngir dem teral suñuy waajur la hmm. tey ji bu doon visa daf ñoo yomb wala tey ji duñ duñ jaar ci gaal yi noonu di ci dem dañuy dem déposé comme ñëpp waaw mais dëkk bi dëkk ku ma am nday la ak dëkk ku ma amul nday moo tax mu metti waaw léegi nag bu ñu amee suñu benn quatre cent mille gis gaal guy dem waa mooy loolu man de ba léegi moom xam naa moom leget sax bu ma ko gisoon damay dem. lan leget. kon yow bàyyi ko quoi. dem naa gaal gi dëkk ñaari yoon ba ñetteel yoon mu échec. Hmm. bu ma gisaatee gaal damay dolli. Hmm. kon yow fi mu nekk nii lan ngay war a mën a conseiller jeunes yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan fii ci Sen 24 TV lan nga leen di conseiller. ñi may seetaan ñu liggéey gëm seen bopp. Hmm. man moom du ma ñoom te ñoom duñu man ku nekk ak sa dund. man ni ma ko sentiree rek laa koy defee. maa ngi sama liggéey ci ngeen ma fekk. su ngoon jotee su ma wàccee dem entraînement bu ma amee combat dem bëre ji. waaye moom yàlla fu mu bind sama yoon rek ci ci foofu laa koy jaar quoi waaw dëgg neexul. parce que. bu ma amoon leneen lu gën a nooy loolu damay jaar ci loolu noonu dem waaw xam nga liñ naan tukki yomb damay indaale moo jafe te tukki taxul tekki tamit tekki tamit terewul toog waaw mais boo gisee ñu ñuy defee noonu rek dafa am lu tax li tax mooy ñun dañoo war a yaakaar sunuy waajur far sunuy waajur yaakaar si ñun waaw xam nga rek am na yoo xam mënu ci di wax di ci sori nii quoi parce que li ci nekk dafa bëri waaw mais maa ngi sant yàlla bu baax nag. ndeysaan waaw parce que xam nañ li nekk ci xol yow xam nga mu baax yaa ma yar. dëgg la ku ma xam-xam ma ci am jom fu fulaak fayda xaw ma lu dul yokkal ma jaay la. mais ñun lu ñu am rek suñu waajur yi ñoo ñu ko gënal man soxlawu ma dara bëggu dara man na sama njaboot tedd rek ak samay waajur. waaw ut fu ma dugal sama papa. Mm-hmm. waaw ak sama bopp ak samay rakk mm-hmm. waaw. lan ngeen wàccee ci seen 24 ak télé bi nga xam ne yaakaar naa ne def émission bu am solo parce que gars yi dañ lay suivre lu bëri ñu bëri dañ may envoyé say lien naan kii sa mag bi la dañ koy gis marché ma leen waaw lii lay liggéey day ne marché tey mu ne ci fëgg jaay bi tey mu ne ci tisi suba mu nekk ci télé bi waaw lép ci gëm boppam bañ a toog mooy comme li ma la wax sànq rek mhm. affaire bi noonu la jàpp te bàyyi gëm sa bopp. xam ki nga doon xam yow yaay kan. kenn bañ la yap waaw parce que yow kenn du la wax nu marché bi demee tey mi ngi nii suba nga xëy ramas bi ñëw dàq ji la affaire yooyu noonu. seen 24 TV nag moom télé bu ma miin la tamit. parce que. si ma bëre sax li léegi damay gis sama bopp ci si ñoom ñi ñëw di ma def ay interview wala ñu may caméra stade waaw di ko ñaanal nag ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam moom moom du télé boo xamante ne si ni waa Thiès xamuñu ko gars yi moom miin nañ ko télé bi dañoo bëgg mu génn hors série ndeysaan waaw waaw surtout loolu hors série international waaw ca kaw daal ca kanam parce que li ma bëgg moom mënu ma ko wax quoi bilaay walaay barke ban clip ngay may say soppe ak ban clip ngay may ñi nga xamante yaakaar naa ne amuñu ku dul Nékorél ndax yaa leen di jaay lu baax ak ñi nga xamante ji boo bëree mu neex seen xol daal di neex ban clip nga leen di may temps kan mooy sa waykat. man benn waykat laa. mooy la na nga fi ko na ko mën a way rek la kan la. waykat laa am. muy kan. non Amath bëgguma mu bëgguma koo wax noonu. quoi xaw rek ñun waa Sen 24 koo ñu wax ñu gën ay wayama wa na nekk ku rek. ku siw man sama waykat siwul de. kan la mais mi ngi ci yoon bi nag di ñëw man xooluma ñu siw ñi. kan la Sifa la Sifa. Sifa waaw. laa ilaaha illallah l'international gonek Saloum gi gonek Kaolack gi. doomu yaay Amet ci doomu yaay Amary Badiane. nee naa la boo woyee mu neex boo ambiancé mu neex Sifa. nee naa la fii ci Thiès naa ne kenn moomuñu ku woy muy dugg ci seen xol yaakaar naa ne heure boo wootee xale yi dagg ticket xale yi daal di jënd billet yi. la neex doomu yaay Amet ci doomu yaay Mbaye Sène doomu yaay Baye Daouda suba nag ña nga wayal wayal jaaykat yi Diagne Nar ciao te mi ngi noonu ak seen 24 TV ak Diagne Nar waxoon naa leen ko neewoon naa leen heure su ma duggee ci marché bi rek yaakaar naa ne lépp li nga xamee nii waa Thiès dañ koy soxla bëgg cee waxtaan ak jeunes yi ak jeunesse bi yaakaar naane ci loolu laay dox neewoon naa leen fu ma fekk stress ci xol dama koy sepp daal di koy def bànneex neewoon naa leen fépp fu ma fekk naxar dama koy soppi daal di koy def mbëggeel ma dend ak xale yi gëm seen bopp xale yi nga xam ne yaakaar naa ne liggéey rek la ñuy def jamono ñu toll na yaakaar naa ne réew mi jaxasoo na ndax xale yaa ngi jël gaali di dem ñii di jël ci salo bi di dem ma dend ak gentleman yi nga ñi ngi fii ci central na waar naka mbég eh, a conseillé mhm. damay wax ak ñu yor réew mhm. dara lu bëgg teral seen waajur teral seen bopp ñàkk daa métti de mm-hmm. toog ni war a defal sa yaay amoo loo ko defal nga yaakaar ne soo génnee réew mi di nga ko am boobu loolu doo gis lu dul dem yow mm-hmm. yaa ngi ni jógee Dakar ñëw fii lu fi indi bëgg a teral sa waajur ak say jabar man mii mbuur suma ma benen beneen pexe tamit damay génn rewmi mi de asma bee ma jaaxal mais kon ma jaar ci gaali wa yeen ñi asma mënoon dugg ci géej moom loolooy problème bi nak ndaysan ku la waxu dëgg dal bax la dëgg moy Sénégal dafa metti par parloo gi bëri yàqante bi ñaanante bi da ngay gis kuy laal fenn fas dafa suturloo ñu jëlé ko fa kon nak c'est-à-dire lo fay defati moo ma jaaxal buñ waxanté waxantee dëgg rek xama yeen say ma taxaw naan ni yeeg na ñu naan amé Diagne da tangu xol amé ni yeeg na mais gis nga dëkk bi Sénégal melni mel kuma am nday la kuma amul nday tay ji lan ngay wax lan ngay conseil conseiller jeunes yi. jeunes daal leen laa leen conseillé. ñu concentré wu seen bopp. ku am foo jaar jaaral. yàlla ragalul kenn ba koy xaar ci gaal. ku mën a jaar ci gaal yi jaar ci gaal ku mën jaar ci désert bi jaar ci désert bi. parce que Serigne Touba réew mi day gën a metti ndax bu dul Macky Sall ñun ñii suñu biir a noo dañoo soxorante bëgguñu kenn am. boo fi toogee nag. fii ngay nekk bàyyi di xoole bañ ba sa ndaw jeex fi tàkk. wala mooy bëgg dee ñu naan yoonu ndaw du gaaw. Mbappé maa xam ak. Sadio maane maa xam mag. waaw te ñu ngi ni yor lu jeex. waaw mais nit ñi ñoo soxorante seen biir. dégg naa Sadio maane waa fee naare li ñu koy fay bari na de. waaw mais loolu lu sens mérite la ndax parce que li am da koo delloowaat ci dëkk bi. Mm, boo amee da ngay delloo si dëkk boo demee Bambali. Mm. defar na fa hôpitaux. Mm. juma. ay xaritam mu jox leen xaalis pour ñu liggéey. mais tey da ngay imaginer nekk ak sa xarit fii. mu dem tukki. du la message du la woo soo ko woowee sax mu ne la damaa jàpp. kon yaakaar kon kooku boo yaakaaree ci moom pour mu dimbali est-ce que ne dimbali. da ngay defee nag yow boo amee jom nag. doo gisee gaal yi taxaw. dangay ngay dugg ci gaal yi dem. bu dee dëgg rek man du ma wax benn jeune toogal. man moom barki maam Seex Rafaal boo moytuwul sama life naa ko tayale ci gaal yi. ëpp naa def maam suñu réew mi bu dee dëgg rek ay dëgg. dañ koo bëgg a parti def ñetti parti te mënta nekk. ki fi ne jiite réew mi. boppam ak njabootam. sëriñ si ñu yaakaar. xamuñu leen dégg xaw ma dégguñu leen bu ñu waxee duñ dégg. beneen bi ñun ñi di taxale nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu am place ñun amuñu place di ne seen kanam bu ñu lalee seen kanam ñu lalli ñu ba pare boole ñu ñu ñu lalli léegi yow doo lal kii nii xoola fii mu lal te fee la doon lal di fa faj yor yaayam yor ay mbokam ñu lalli ko tey léegi xale bii ni su su tey ji su gisoon gaal est du dem doon dawee dépasse dañu waxante dëgg loolu la ñuy wax ba pare door a wax ak Macky Sall ñun biir ñoo bëggantewul bu dee dëgg rek ay dëgg dafa metti nga nekk xale sa yaay yaakaar la say rakk yaakaar la ngay daw dépasse affaire boobu noonu ah di ci faj say soxla ñu laal la ba pare bëgg naa la ay toogal muñal muñ bakkañ fii ku fi toog naan da muñ fii ngay dee ndax ñi nga xamante yaa ngi jàkkaarloo ñoom di liggéeyandoo ak ñoom ñoo lay njëkk a ba pare avant tout dara di xew du ma wax benn jeune bul dem fenn ku mën dem demal noo ñi da ngay na ci bon bon dañoo soxor bëgguñu kenn am dañuy ñëw naa la yaay sama doom yaay sama nangam yaay sama dañuy dañoo bon bu dee dëgg rek kay sa xol jóg na ban clip ngay may say client ak say fans naa ko may nangaloo marchand ambulant ñun ay marchand ambulant lañ ku xeeb ku xeeb ku xeeb sa noos ku ne hmm. cent francs da ngay noos ñu ñu ngi fii di liggéey tooñuñu xeexu acca mi ngi noonu ak jaaj naar waxoon naa leen ko yaakaar naa ne tungu ñu du teew ñu nataal waaye nag ne woon naa leen tubaab du moroomu naar te law bee neex a jàngali pël ndax jëf jëfi jën jëf jëfi cecax booba ginaar amagut ekra eh, maa ngi kontaane bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa RTT TV ah, di nuyu képp koo xamee ne yaa ngi ci sekk maa ngi lay kontaane bu baax a baax Samba dafa lu la neex maa ngi lay kontaane bu baax a baax ne woon naa leen affaire yi nag xoola jàng la ndax ñu ngi biir seen 24 yaakaar na ne nekk ay xale nekk ay xale yoo xam ne nii dañoo topp suñuy waxi kilifa lépp lu ñu wax loo wax ko lép lu ñu def loo ñu def ko ndax xale yaakaar na ne boo nekkee ci biir mag waaw tegas tànk fi nga xam ne nii fa lañ nga teg ko fa seen 24 ngi noonu télé baa ngi noonu muy télé bi nga xam ne yaakaar naa ne jaañaar sàkku fa bokkam Diagne sàkkul fu boppam waa Thiès a bëgg Diagne ne Diagne mooy bëggal seen i xol waa Thiès a appoo Diagne ne Diagne mooy animé seen xol di neex bàyyi maman Diagne séeri Roqaya aw bu góor baa ngi nii neewoon naa leen lu mu guddi guddi guddi guddi guddi caali laay fanaan maa ngi lay kontaanee xamee nga jëmm ji Lamine Ndiaye ngi noonu. lës maa ngi lay nuyu. waaw Diagne maa ngi lay sant bu wér Fall. ci waaye nekk nii rek gars naka ngi nii rek comme d'habitude. mais Lamine Ndiaye temps naa ne dëkk bi riir di jël gaal di dem mhm. te ku yaakaar naa ni télé boo xam ne ni yaakaar naa ne lépp lu xew ci dëkk bi dañuy dugg daal di ci waxtaan ñi daal di koy xamal jaamu yàlla yi mhm. lan ngay wax jeunes yi nga xamante ni ñi ngi jël gaal di dugg ci géej gi waaw maanaam asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk Thiès waaw di leen nuyu nag mag ndaw euh, bàyyiwuma kenn di leen ne maanaam senegal gu ñu nekk nii daanaka toll na foo xam ni ku njëkk yuuxu rek da ngaa ragal. waaw ndaxte jeunesse yi bari nañ fi ñoo xam ne ku ci nekk bëgg ngaa boo ko boo ko laajee mun ne la damaa bëgg a teral sama yaay damaa bëgg a teral sama baay. Mhm. kon nag lépp nag ñett ki nag lépp loo yootu nag sa àdduna. Mhm. bul yàkkamti. xamal ni yàlla bu nekk fee moo nekk fii. Mhm. te loo sabablu rek yàlla jàppale la ci. kon yaakaar naa ne affaire u géej ay affaire gaal yooyu noonu. jàpp naa ne deuxième la. waaw ndaxte léegi Europe sax da ngay dem daanaka. yow li ngay nangu foofu noonu di ko liggéey amaana boo ko nangu sa réew yàlla jàppale la waaw maanaam daal àdduna daal góor daal jarul ngay yàkkamte dara maanaam sa àdduna ngir ka bëgg teel a tekki ba tax na ngay naan yaa ngi dugg ay gaal loolu moom deuxième la waaw lan ngay wax waa Thiès ci Sen 24 TV ndax Sen 24 lu xew daal di Sen 24 daal di sol daal la mu ànd ceeg Diagnard daal di ci waxtaan ak nit ñi mm-hmm. lan ngay wax waa Thiès ci Diagnard ak Sen 24 télé bu mag bii nii waaw Diagnard dafa doon benn nit koo xam ne amaana jantal bëre de la amul problème yéene na ñëpp jàmm fu mu romb ñi day kaf day rey xam nga ba ci man mi di xaritam ba ci ñeneen ñeneen ñu muy tudd ci télé bi mm-hmm. ki mooy chéri Roqaya. waaw waaw noonu la demee nag. ndeysaan yaay papay bàyyi mama. waaw xam nga ah. <laughs> waaw moomin la daal. ndeysaan waaw ba tax na maanaam C24. Hmm. ci kaw ci ci kaw si kanam. ndeysaan waaw lépp loo leen filmé daal baaxul daal loo leen filmé wul baaxul quoi. ndeysaan noonu la demee yow moom. Ah. connaissance. te ah. yàqal yokkul jom ji yokkul liggéey bi. te xam ne maanaam àdduna daal dara jarul yàqamti. te ci kaw ci kanam rek. C24. Hmm. let's go. ban clip ngay may Henriette sa aaw buuru këram. waaw Pape Diouf moo fi ne. Gorgui Diouf ah. waaw waaw ñun topp ñu kenn ko dul Pape Diouf may ma Pape Diouf bu saf sàpp booy ah. noonu la demee waaw ah, mi ngi noonu nee naa ko may Pape Diouf yaakaar naa ne seen 24 ngi noonu jaañ naare ngi noonu nee woon leen nag fépp fu ma fekk stress dama koy seppi daal di koy def waaw mbégte fépp fu ma fekk naqar daal di koy def lu neex jaaññaare ñu noonu biram si ga paarub tey ñàkk ñu ma ngoo jaañ samba séréer bi ci am gaal ca buqo sambaay borom rus ngeen bàyyi mama jaañ séri roxoya ne woon naa leen seen 24 ngi noonu mooy télé bu mag bi seen 24 ngi noonu mooy télé bi nga xam ne ni yaakaar naa ni lépp lu xewlu ne seen 24 da daal di jóg daal di sol leen koy won jëleen commande daal di koy laaj ci seen 24 TV Pape Diouf ak seen 24 TV di leen baalu àq nag bu baax a a baax di leen xale baa ngi noonu ne woon naa leen nag lépp ñu ci a baax ndax heure bu ñu sañoon ne bu ñu xëyee bay rek lépp loo xamante leen neex la ci la ñuy dox waaye nag jàmmatu ndax ñun ay doomu yaakaar naa ne tey ji émission bi tey ñu doon waxtaan ci xale yi nga xamante yaakaar naa ne ñi ngi jël gaale di génn seen réew ngir lan yi xale yi nga xamante ji ñi ngi jël gaal yi ngir lan fami kon ñi ngi ñaan ñi nga xamante ji ñoo yor suñu réew mi ngeen jàppale jeunesse bi yéen ñi nga xamante ji yaakaar naa ne yéen la ñu dénk suñuy kaddu jàppale leen ni jeunesse bi ñi ci génn àdduna suñu borom jël leen ci biir géej gi ñu ngi leen di ñaanal ci barke yonent yàlla Mouhamed yàlla dañu motale seenu ndaw ci àjjana yi gën a kawe ci barke borom Touba. jeunesse bi nañ gën a delawaat suñu ci yàlla ndax àdduna dara yàggul ndax suñu borom képp kum bind ku ne lépp li nga war am ci àdduna dina la jox bala nga fay jógee kon ñi ngi ñaan ci barke Seydina ñun jeunesse bi ak képp koo xam ne tey yaa ngi ci àdduna yaa yàlla na suñu borom gën a kàttanal ba lépp li nga rêvé yàlla na la ko suñu borom defal ndax ñun ay ndaw lañ ndax buñ señoon tey yaakaar naa dinañ am ci oto yu baax yi am ci kër yu baax yi seen 24 ngi noonu nag télé baa ngi noonu jaaññaar nag dafa sob ndax jaaññaar moom ci lu leen lay dox jaaññaar ci lu leen lay waxtaanee waaye nag bëgg ngeen di bég saa su rek moo koy waral tey jii ba tax lu ne laay def maa leen di kontaane nag bu baax a baax a baax a baax yéen ñi nga xamee ji gisuma leen ngeen téye seen i commande di ma ñaanal maa leen di ñaanal man tamit ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla a defal jàmm ci maa ngi leen di ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla bu ngeen gis lu ngeen ragal ci barke Seydina Muhammad Issa tey nag jamono jëpp maa ngi def émission am sama rakk joo ji dama ko fàtte woon a jaale waaye nag waaw xëy na waaw xel day fatu muy suñu rakk ji nga xamante ji jamono yee passé lañ ko agressé woon mu dëkk Thiali suñu rakk jooju ñu ngi koy ñaanal ci bàkki Seydina Mouhamed yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe muy moor ñu ngi koy ñaanal ci barke Seydina Mouhamed yàlla na waaw xippee na ci barke borom Touba yéen yi nga xamante ji yéen a ngeen nangoo alalu jàmbur ngir lan jël bakkanam baleen loolu baleen loolu ku ci doon agressé ba tiim nit mu leer na la kii yen bokku bokk ndey ak baay yaakaar naa ne doo jël jaasi di ko ko gor yéen ñi nga xamante yéen a xale yi ku ci tiimoon tey ji nit di ko agressé mu leer na la kii yéen a bokk ndey ak baay non doo ko rendi wala nga koy def lu ñaaw suñ rakk ji nga xamante yi jóge na fi ñi ngi ñaan ci barki yonent yàlla Muhammad yàlla na xippee àjjana ndax man li ma dégg ci moom rek toy na ma lima ma ci mom tayji yakarna ne suñu xel ñun ñëpp ñi nga xam tey dëkk nañ ci ali suñu xel tayji dal na ci mom barki Serigne Touba nekkon xale bu gëm bopam xale bo xamante tayji amu tok kenn xaar ma yàlla yakarna ne bésam ba fété ci ali da ngay gis ñi sax di joy te xamuñu ko kon ñing koy ñaanal ci barki Seydina Mouhamed lépp lu mebeton yàlla ko sunu borom fay yiw ci bir bàmmeelam ci barki Seydina Mouhamed jàññaar a ngi non nak ak sen 24 TV lépp lo xamante tayji da ngeen koy bëgg rek man jàññaar ci lay dox roxay Fall je t'aime yaay Mama Diagne yaay Tafa neena la awo na la jig bu la aawo loo yóotu jot ko aawo na la jig ndax sama aawo bi mooy ki ma jàppale sama aawo bi mooy ki nga xamante yaakaar naa ne ah seetaanu ma daal benn yoon jëlal ma sama sañse ma may ko mama Diagne roqee tey ma la sama sañse de mama Diagne laa koy may gogo jëlal sañse bi sa papa tey jii lii la sañse ci Black and White sama taaw bi nga xamee nii yaakaar naa ne kooku mooy sama xarit ma àndoon nag tey jii sama caméraman bi Issa nee naa la le golden boy xale bi nga xamee ne nii yaakaar naa ne bu filmé mu rafet. bu cadre mu tolloo Issa defal la neex nee naa la man maa la àppo Racine Kama del jënd glace daal di koy tëmbal NG sa parteeg Demba Yoro borom ñeewi ci saalum dundal waaye nag dañoo xew de Sen 24 moo fi ne de yeneen yaa ngi bëgg a